Euh, euh, di teewlu di rafetlu seen teewlu ci 2STV yi yéen ñi ñuy déglu aussi ci 88 point 4 Origine FM ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen euh, wax ngeen dala jàmm ci seen matinal matin bonheur comme ni ñu koy defee saa su ne bu waxtu wi jotee ñu ànd ak yéen ci li gën a fës ci actualité waaye itam. am invité boo xamante ni dañuy toog ak moom waxtaan ak moom ci li ci gën a fës ñi ngi ci euh, toujours li nga xam ni moom moo di résultat élection yi ñi ngi koy xaarandi di si à vendredi loolu moo waral ñu fas yéene rek analyser journée dimanche bi ak li nga xam ni moom moo ci tegu loolu moo tax ñu fas yéene euh, dalal tey l'analyste politique Abdoulaye Mbow mu daal ñu koy euh, càmbaral ci ñu mu gën a yaatoo ñu ngi lay nuyu Abdoulaye. di bu baax Astou c'est toujours un merci beaucoup ci kanam tuuti ci loolu la ñu daal di taxaw élection législative yi nga xam ni si la ñu jugee le juillet en gis nañ ne résultats yi ñu ngi koy mi ngi jugee fu nekk ku si nekk itam yaa ngi jéem a proclamer vainqueur mu nekk ci pouvoir du opposition euh, majorité bi ñoom en tout cas moom la ñu nekk di xëccoo jamono ji en décision bi nga xamante ni moo fas yéene euh, jugee. Euh, ci résultat officiel yi loolu nag sax mooy gën a fës ci xibaar yi euh, démb la cour d'appel euh, bi nga xamante ni moom moo fas yéene rek xool lu ni mel daal di recevoir commission yi nga xamante ni ñoom ñoo doon saytu yooyu les élections lu toll ci 40 moom la ñu daal di recevoir rek ngir xool mbir yi naka la tëddee Dakar moom jamono ji mën nañ jàpp ni lii di opposition bi Yewwi ak Wallu daal di nañ koy euh, remporter résultat bi génnagum donc euh, loolu bokk na ci en attendant ñu xool euh, résultat yeneen gox goxaat yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci biir réew mi ñu daal di xool li gën fës ci yéenekaay yi ànd ci ak régie daal di koy dooree ak li quotidien li nga xam ni dafa ñëw. tey ci li nga xam ni moo jom ci yooyu la élection législative di wax rek ni euh, am na euh, participation bu ndaw a ndaw moom lañ ci euh, seetlu dafa mel ni nag est-ce que du askan wi ñoom dañu daal di rek mépriser lii di mbirum politique fii ci biir réew mi laaj la bu lii quotidien daal di samp à la une du jour Walf Quotidien dafa ñëw ci mbirum cherté de la vie maanaam li nga xamante ni moom moo jëm ci dund bu cher bi mbirum transhumance ak troisième mandat est-ce que du loolu moo tax sax euh, ñu daal di euh, voter vote sanction mooy euh, li Walf Quotidien daal di xëy fasal ci xëtam bu njëkk Sud Quotidien dafa ñëw ci li nga xam ni moo jëm ci élection locale yi ak législative yi Benno dans le dur dafa mel ni jamono ji daal bennoo mi ngi ci guddi bu bët setagul bu ñu sukkandikoo ci euh, Sud Quotidien gannaaw loolu ñu dem xool euh, beneen yéenekaay buñ ci toftal lu Quotidien la moom dafa ñëw ci résultat élection législative yi nga xamante ni euh, nee nañ daal jamono ji ñu ngi koy xaarandi waaye mën nañ jàpp itam ni Benno ak intercoalition wàllu Yewwi jamono ji ku si nekk yaa ngi jéema xëcc majorité sa boor Yewwi Askan Wi di wax rek ni dina am retour recours boo xam ne dinañ ko déposé mais Kaolack moo lañ ko fa yéenee Euh, layal Podor itam nekk na tiitre foncier boo xamante ni daal dinañ koy euh, dagat dagatee bu ñu xoolee euh, ci quotidien bi lu muy wax Libération moom dafa ñëw ci benn ojo boo xamante ni audio bu ñu ko ku ñu jiiñee viol la euh, kii nga xamante ni moo di Sitor Ndour moom lañu ko jiiñ te audio boobu nag dafa mel ni mu koy gën a accablé bu ñu sukkandikoo ci libération mi ñëwaat ci biir moom nga xamante ni mbirum viol la mi ñu jiiñ ki nga xam ni moom moo di Sitor Ndour l'observateur ñëw ci lii di jëm ci coalition Yewwi ak Wallu li nga xamante ni c'est historique d'après euh, l'observateur ñëwaat itam ci mbirum assemblée nationale ak euh, li tukki ci élection euh, législative yi euh, gannaaw loolu ñu taxaw ci Dakar Times moom dafa ñëw ci euh, mbirum business lu ñuy tuddee traite de personnes maanaam ñu jël ay doomu aadama di leen jaay ci Afrique de l'Ouest la mbir mi gën a fësee te lu muy rapporté ci ay milliards mi ngi toll ci juróom ak juróom ci ay milliards at bu jot loolu mooy lii nga xamante ni moom mooy tukkee ci mbirum jaayul nit ay doomu aadama fii ci Afrique de l'Ouest tribune moom dafa taxaw ci eh, président Macky bi nga xam ni eh, gannaaw eh, lii di élection législative yi dafa mel ni am na mbetteel ak surtout déception démb nag loolu en tout cas loolu la tribune daal di fësal moom bu mu jonowee ak ay ministre am rawatina ñi nga xam ni dañ leen dóor ci seen ay gox le soleil dafa ñëw ci observateur yi nga xam ni ñoom ñoo toogoon di saytu élection yi ak surtout euh, satisfaction bi nga xam ne am nañ ko ci organisation bi euh, lu ni mel loolu le soleil daal di moom xëy euh, fësal ci xëtam bu njëkk gannaaw loolu le vrai journal moom dafa ñëw ci euh, daanu bi nga xamante ni Benno Bokk Yaakaar daanu na ko si législative yi mu daal di si def ab euh, taxaw euh, seetlu ñu ne lan moo tax bilon matériel bi moom amul pois bu baax a baax ci élection yi ndax bu ñu xoolee am nañ fi euh, ay chantier lu ci mel ni BRT ak it infrastructure yoo xam ne inauguré nañ leen euh, terewul am na daal foo xamante ni moom askan wi dafa sanctionné bu baax a baax ñi nga xam ni ñooy waa Benno Bokk Yaakaar loolu moo nekkoon li gënoon fas ci yéenekaay yi daal di jox suñu invité ñàkkul commentaire bu mu si bëgg a def Abdoulaye Euh, waaw jërëjëf encore une fois. dama koy doole nag ak seen quotidien le vrai journal. <laughs> waaw waaw defe naa ni euh, damay ñëw si journal bi nga xam ne <laughs> moom moo gën a soxal di vrai journal. Mm. parce que comme ni nga ko waxee euh, ak nu ñu ko bindee effectivement c' est nous demander pourquoi le bilan matériel n' a pas pesé. te itam gis nañu ni effectivement président Macky Sall def na ay réalisations am solo. Mm-hmm. te tête de liste bi di Aminata Touré elle a battu campagne autour boo ñëwee dafa am li nga xam ne ak côté du bilan matériel dafa am le bilan immatériel le bilan tam dafa diis te bilan matériel bi jëm na si li nga xam ne mu di sëngee mu état de droit ay universitaire ay boroomi xam-xam gis nga bind nañ si bind si bind si ay bataaxal boo ñëwee tam si li nga xamoon di xeex ger dafa nekk loo xam ne daal euh, euh, xaw na nekk problématique au Sénégal boo ñëwee si li nga xam ne nag moo di transhumance bi tam la transhumance également a beaucoup pesé parce que sénégalais wan nañu ni effectivement ñoom rejeté nañu lépp li nga xam ne moo di forme de transhumance parce que transhumance mooy kanam gi gën a ñaaw si façon gu ñuy pratiquer politique au Sénégal te nañ koy defee dafa flagrant ba nga xam ne effectivement da ngay séentu ni am na loo xam ne mu ngi si ginnaaw waaye boo ñëwee itam si li nga xam ni moo jëm si euh, euh, euh, mbir yi nga xam ne dafa laal justice gis nga l'affaire mhm. Mankabou mhm. gis nga l'affaire du jeune Idrissa bi ak ndaw yi faatu diggante mars deux mille vingt et ak li nga xam ne moo di moo di juillet juin mhm. 2022 euh, def naa ni boo xoolee yi nga mujjee yi nga njëkk wax noonu dafa jege loolu sax élection mm, yi voilà mm. voilà dafa jege loolu élection yi boo xoolee pratiquement 18 morts au total ak euh, lii nga xam ne moo di affaire ma du sekk beeg lañ ciy wax ak la les les les deux sorti du procureur ak yu demee noonu yëpp def naa ni euh, dafa bokk si li nga xam ne effectivement sëngam loon lii nga xam ne moo di masse électorale bi bennoo amoon ba nga xam ne aujourd'hui masse électorale boobu dafa effrité wu effrité wu ba nga xam ne effectivement ba ñuy werante si kan moo raw ñetti député ak juróomi député def naa ni euh, loolu war nañ ko jàngaataat bu baax mm. euh, quel que soit par ailleurs li nga xam ne moom la président investir si ay milliards ba pare ñu wëlbatiku di dégg tamit ay presque milliards yu ay nit di denc seen i ay kër ba ñu naan sàcc nañu lu tollu presque si milliards def naa ni ak sénégalais coono gu ñu nekk cherté de la vie bi euh, ceeb gi yokku diwlin nag lépp yokku ñuy dégg jege ñaale président boo xam ne amaana denc na ay saako million si ay ay biir këram dafa naa yooyu yëpp dafa nekk problème yoo xam ne sénégalais yi ñoom analyser nañ ko autrement ba nga xam ne ñu def li nga xam moo di sanction par rapport euh, li nga xam moo di élection bi ñu génn le dimanche dernier. tey bu ñu taxawee ci bilan matériel bi lan lan nga koy jox euh, comme comme note euh, supposons. Mm-hmm. tey def nañ ay infrastructure yoo xamante ni ñëpp teg nañ ci seen mm-hmm. bët. am na peut-être yu des mais tey boo doon def benn évaluation par rapport au bilan matériel du de de l'État du Sénégal. Mhm. lan lan nga koy jox comme peut-être benn rang. su ma su ma doon jox not du ma joxe note mais not bi dama koy dama koy def note note note anglo anglo anglo-saxon yi quoi moo xam Canada wala États-Unis comme ñoom A ak B la ñuy def ak genre yooyu. Mm. parce que li ma mën a wax rek moo di euh, dëgg-dëgg président Macky Sall fekk na Sénégal A yóbbu ko Sénégal B. Euh, jëm si li nga xam di wàllu infrastructure parce que itam boo xoolee li nga xam moo di programme programme ruraux yi lu jël si lu jël lu jëm si Puma jëm si Promoville jëm si leneen am na lu bari loo xam ne def nañ ko si àll bi boo ñëwee xool tamit tali yi ak autoroute yi def na lu bari. Mm. boo ñëwee xool itam la construction du stade euh, Maître Abdoulaye ak euh, Dakar Arena bi. ak euh, li nga xam moo di Diamniadio extension bi ak lañ sey def yëpp le programme justement di logements sociaux ñëw sur le BRT qui qui commence à euh, qui est sorti de terre ñu ko nekk ci chantier yi dafa naa ni am na ay ay ay mbir yu am solo yoo xam ne daal ci bilan matériel bi moom kenn du ko naatable mm-hmm. mais encore une fois le bilan en réalité na na nakkul nekkul li nga xam ne mooy orienté dëgg dëgg dëgg euh, li nga xam moo di choix électoral parce que bul fàtte astu 2012 euh, tout le monde disait que le le le bilan du président Abdoulaye Wade était reluisant. et mhm. pourtant 26 pour cent la am au au au premier tour donc loolu tamit day toll benn moment boo xam ne. baaxoon na bu ñuy toll ci 2019 mais après 2019 il y a ce qu'on appelle le temps de l'usure au pouvoir le temps de l'usure maanaam ñu jàpp ni ñu commencé jàpp ni kii mi ngi yàgg ci nguur quel que soit par loo mën ci def te bul fàtte ni en pleine campagne il y a eu une une revalori revalorisation des salaires de l'administration publique et généralisé tout à waaw fonctionnaires yi am ñaar fukki junni yoo xam ne yokkal nañ leen ko seen salaire ba pare doon leen waaj a rappel 300000 euh, francs yoo xam ne dañ leen koy dugal seen gafaka. te pourtant gis nga ni euh, lajj nañu fi nga xam moo di grande agglomération yu mel ni dakaar te dakaar booy xool infrastructure yu ëpp solo daanaka fii lañ ko defee te xoolal corniche bi yow léeg lañ ko doxantu fa gis nga nu mu nu mu rafetee avec euh, su la conduite de justement du ministre Abdoulaye Seydou Sow gis nga corniche bi duñ ko defaraatee jeunes yi ñoo fa ëpp te ñay ña ngay séen si corniche bi ñu si bari partiquement ils doivent être normalement des primo-votants et au-delà mhm. mais parce que itam y a beaucoup de concours de circonstances liés également à une certaine arrogance comportementale et une arrogance dans le discours constaté chez certains et surtout ceux-là qui font partie de la race des transhumants te loolu daf ci am solo aussi ah. parce que mm voilà loo xamante ni la xëy na communication buy am mm-hmm. diggante état bi la ak mm-hmm. ñi nga xam ne ñoom la ñuy jiite voilà donc donc boo xoolee ñi nga xam ne ñooy nekk fësal nekk ci kanam ñu jiital leen je crois bien que on doit apprendre justement des des erreurs du passé mais non on répète les mêmes erreurs du passé aujourd'hui tu vois ce sont des transhumants ñoom ñooy ñëw taxaw kaddu gu gën a ñaaw kàddu gu gën a yées ñu baal ma ci kaddu bi ñoo koy yëkkati ñooy taxaw jàkkaarlook sénégal yi di yëkkati kàddu bay saaga def naa ni euh, ku ñu ne kii ku ko xamul ne kii kan la ñu ne c'est un proche du président defe naa ne am na neneen noo xam ne da nga koy gisee. Mm. boo ñëwee xool itam ñu gis transhumant bu yëkkati téléphone am tëju ñu micro muy taxaw di woon monsieur le ministre naan ko ñëwal Ousmane Sonko la ñuy waaj attaqué xam nga yooyu yëpp ça crée en réalité li nga xam ne mooy le contrer de ce que tu recherches dafay créer un autre capital sympathie par rapport. à la personne et au groupe de personnes yi nga xam ne si ñoom ñoom ngay wéy di attaquer ñoom ngay wéy di jiiñ ñoom ngay wéy di brimer on a tout fait dans ce pays-là en termes justement de de de de fabrication je veux dire ou de création de rumeurs pour pour takkal ko kenn koo xam ne effectivement da ngay gis ni il a toujours le vent en poupe quand tu vois une personne loo mun ti def accusation yebal ay nit qui ont véritablement un discours de bas étage di wër fépp di ko wax nga gis ni nit kooku saa su ne mi ngi gën a yéeg di gën a jege le sommet de la pyramide je crois bien que l'idéal par rapport à l'intelligence de la communication moo di nga changer de paradigme communicationnel pour voir comment véritablement contourner sa la forme de communication bi nga adopté woon te doxul pour nga mën a jàkkaarloo ak moom sur la base justement des idées sur la base des arguments et non pas sur la base des insultes comme ni ñu koy gisee te defe naa ni loolu yëpp tamit dafa bokk si lii tax sénégalais yi di gën a rejeter li nga xam ne moo di nguur gi boo xoolee au niveau de la diaspora nga xool sénégalais yi euh, bi en France aux États-Unis au Canada un peu partout qui sont dans des dans des environnements développés yoo xam ne en réalité la ñuy dund si jafe-jafe bokkul li nga xam ne moom la ñuy dund au Sénégal et principalement en Afrique kon ku nekk si cadre bu développé amaana nekk fa di liggéey. Mhm. amaana am fa sax nationalité double nationalité am nationalité goo ak bu Sénégal te teewul tu as tu depuis quelque temps on constate que ñooñu ñëpp seen choix mi ngi orienté wu vers l'opposition loolu tamit dañ ko. ñoom dañ ko war a jàngat. mais mais tey euh, malgré li nga wax nii yëpp dañuy dégg souvent que ni euh, sénégalais euh, xamagul nu muy voté. Mhm. c'est-à-dire ñi ci dañ naan voté wul pour programme day mhm. vote juste pour folie et cetera. Mhm. yow ban analyse ngay def ci votu sénégalais la façon de de de voter des sénégalais. waaw xam nga sénégalais c'est vrai que benn moment on a l'habitude et c'est un constat sociologique que ni Sénégal le en réalité. Eh, kii sax damay naan dérive dérive sémantique la bu ñu nee ne c'est pas voté en réalité <laughs> dérive mm-hmm. sémantique la mais le Sénégal s'est voté peut-être que le choix euh, ak façon gu muy choisir xëy na le plus souvent loolu moo di loolu moo di nekk nekk jafe-jafe mais sénégalais bi moom booy xool choix bi muy def le plus souvent du ko concentrer sur le programme euh, bi nga xam ne ka muy tànn moom la développé lan moo di programme bi parce que amul temps sax lire ko ba koy déglu souvent c'est l'engouement populaire qui oriente souvent le choix véritablement mm. euh, des électeurs sénégalais te moom la ñuy constater boobu ba léegi mais nous osons espérer que la prochaine